wala lan mooy li nga xam ne moo war a mun a waral nit ki am diabète am euh, tension artérielle. waaw li nga wax moom day day day laaj bu am solo. Mhm. Euh, te baat bi nga bi nga tànn. Mhm. dangaa tudd cause tudd facteur de risque. Mhm. ndax tension ñaari ñaari xeet la. dafa loo xam ni dañoo dafa tudd hypertension artérielle essentielle. nga xam ne ba fi mu ne. mën noo wax ne lii moo koy indi. maanaam amul cause. loolu boo jëlee téeméer bu nekk euh, juróom-ñeent fukk yi. Hmm. tension day mel ni amul cause mun na lii mooy joxe tension loolu nag dafa am lu tuddee facteur de risque. Hmm. facteur de risque mooy. Hmm. ay yëf yoo xam ne ba dajee ci nit ki euh, daanaka mën naa waral. nit ki am tension. am nag geneen pàcc goo xam ne fukk ya day mel ni ñoom seen cause day am cause mooy day am nga xam ne lii mooy tawat si lii moo indi tension mais li ci ëpp. di quatre-vingt-dix pour cent yi. nga xam ni eh, xamul lan moo koy waral dafa am lu ñu tuddee facteur de risque. facteur de risque yi dafa am ñaari pàcc. lu tuddee les facteurs de risque modifiables. ak les facteurs de risque non modifiables. bu nee non modifiable mooy loo xam ne kenn mënu koo soppi. loolu da cee bokk mooy eh, nga doon góor wala jigéen ndax ku ne xam na ni boo xasee doon góor. doon nga góor boo dee jigéen doon nga jigéen. mooy ñu tudd la genre. genre bi daa bokk ci facteur de risque non modifiable ba noppi tamit euh, say say at ndax ku am ñaar fukk at ren bu déwénee nga am ñaar fukk ak benn comprendre ma ci genre bi genre bi dafay gën faral di gën a dal góor ñi dafay faral di gën a dal jigéen ñi waaw loolu da ci da ci da ci da ciy am bu nee bu nee bu nee genre day mel ni euh, ni yàlla bindee góor ak jigéen dafa xaw am tuuti wute mhm. ndax ku ne xam ne ni jigéen day day day day day am yu feeñ ci moom ay hormones yoo xam ni. Mhm. daanaka da koy aar. Mhm. Eh, fileeg bi nekk jànq tàmbalee gis mbaax. Mhm. ba keroog muy dem ménopause. day mel ni dafa am ay facteurs protecteurs yoo xam ni day aar jigéen ki. nga xam ni loolu boo ko takk ku góor ki. donc day mel ni eh, bu dee laataa juróom benn fukki at ak juróom. góor ki moo gën a am eh, moom moo gën a exposé. Mhm. mooy tension ci góor lay gën a feeñ mhm. que jigéen waaye nag bu ñu weesoo juróom benn fukki at ak mhm. juróom day mel ni ñoom ñaar ñooy bokk yem donc loolu mooy genre bi nga xam ni góor ak jigéen day mel ni bokkun beneen bi mooy at yi at yi ma la wax euh, at yi tamit facteur de risque la tamit xam ne at yoo xam ni bu dee bu dee góor ki bu ci juróom fukki at ak juróom day mel ni tension mën na koo yomb bu dee jigéen ki juróom benn fukki at ak juróom ba noppi tamit dafa am lu tuddee hérédité dafa am ay ay ay ay ay ay xeet yoo xam ni eh, daanaka dañuy am tension. Mhm. boo amee wayjur yu am tension. Mhm. muy sa papa. Mhm. wayjur bu góor wala sa wayjur bu jigéen yaay yaay gën a yomba am tension que ki nga xam ne ay juróom amoon amoon tension. loolu mooy ñett facteur de risque yoo xam ne kenn mënu koo soppi. mooy non modifiable. d'accord. ci wet ga nag am na yu ñu tuddee modifiable. Mhm. loolu li ci njëkk mooy am am tux. tux mooy cigarette. Mhm. nga xam ni daanaka ñiy tux ñëpp euh, mën na mujjee am am tension. beneen bi mooy ñi nga xam ne danoo xaw a am yaram. moo xam mhm. danoo danoo obés obésité. ñun tamit tension da leen di yomb. ñeneen ñi mooy ñi nga xam ne duñ faral di yëngal seen yaram mooy li ñu tuddee sédentarité. Mhm. nga xam ni daanaka duñ yëngatu. Mhm. loolu aussi tension tension mën na la yomb. Mhm. donc daal yooyu. am na yeneen sax. yoo xam yu bëri yoo xam ni. daanaka ay ay facteur la. waaye li ñu gën a oh. seetlu. Euh, yooyu bu feeñee ci nit nga xam ne day tux. wala ki nga xam ne du yëngal yaramam. wala ki yaramam xaw a sakkan. daanaka loolu yëpp ay. Euh, xorom si mel na ni mel na ni bokk na ci facteur de risque Euh, waaw xorom si euh, boo en li tax ma ne parce que xorom day day daa bokk ci ci ci alimentation. Mhm. ci li ñuy lekk. Mhm. donc booy tudd ali booy tudd facteur de risque du da ngay ber xorom bi rek. Mhm. waaye euh, maanaam lekk gi. ngay tudd. ndax lekk gu ëpp diwlin. lekk gu niin ba noppi saf xorom. saf suukar yi tamit. daanaka mën nay tax tension bi yomb. donc mooy. alimentation bi. <laughs> Euh, jërëjëf naa ñu jàll kon ci beneen point euh, yan mooy signes yi nga xam ne nit ki su ko gisee si boppam mun a jàpp ne euh, mu ngi jànkuwanteeg feebar boobu ñuy wax hypertension artérielle. waaw tension nag li tax mu li tax mu garaaw. sa laaj bii da cee bokk. Mhm. ndax ñu bëri dañ naan nan laay def ba xam ni damaa am tension. Mm-hmm. tension li tax euh, mu yéeme. Mm-hmm. bañ tuddee que euh, tueur silencieux. mooy koo mm-hmm. xam ni mën na laa fàtt doo ko yëg. mooy euh, li ci ëpp mën ngay am tension te doo am te doo am dara loo yëg ci yaram bi. li muy def mooy tension baa ngay yéeg nekk ci yaram bi. di di di di def ay dégâts. yoo xam ne yow mënoo koo mën nga ko bañ a yëg. sa bopp du métti doo miir doo yëg dara. fekk ne tension ba da ngay xëy xëy rek eh, am ab jafe-jafe. yóbbu la hôpital ñu xam ne kat da amoon tension. Mhm. donc li may attirer attention nit ñi mooy. tension mën nga koo am. doo yëg donte nag am na yoo xam ni. Euh, boo ko yëgee sa yaram muy bopp bi mhm. wala sa nopp yi di riir. loolu ay signe la mais li ñu tuddee ay mhm. maanaam yooyu mën nga koo am du tax nga am tension. comme tamit mën ngaa am tension ba noppi euh, am signe yooyu donc yooyu kenn waru see sukkandiku. Mhm. du rek sama bopp méttiwul miiruma sama nopp riirul aw ma tension. Mhm. tension moom mën naa am ci yaram. Mhm. te doo yëg dara. di tax nga xam ne am nga tension wala amoo tension mooy chiffre yooyu ma waxoon. jël tension bi natt ko. xam ne weesu na quatorze huit.